الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله فرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد نحمده تعالى ونشكره ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله ارسله الله تعالى بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ما من خير إلا دل أمته عليه وما من شر إلا حذرها منه فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ما تعاقب الليل والنهار وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم القائل في علاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla subhanahu wa taala moom mi nga xamante ni kenn la moom mi jubluwaay bi moom mi jurul kenn te kenn juru ko moom yàlla mi nekkul nawlu ci kenn ñu ngi koy sant moom yàlla subhanahu wa taala tey seede ni amul kenn ku ñu war a jaam ci dëkk ku dul moom di seede ni suñu sang Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaamam la ndawam la yàlla moo ko yónni mu dégal leen lépp loo xamante ni buñ ko jëfee ëllëg yàlla dugal ñu aljanna yàlla moo ko yónni mu ñuy xuppit ci lépp loo xamante ni buñ ko defee muy sawaan ëllëg yàlla mën yenn ci mbugal moom alayhi salaatu wa salaam de li ko yàlla yónni woon matal na ko ba mu mat sëkk mu feesal dell ak àdduna bi ci maandute bu mu wone bu mat sëkk amul lenn loo xamante ni jàmm bi dina ko jëf mu koy jural yiw ëllëg lu dul ne moom alayhi salaatu wasalaam xamal nañ ko amul it lenn loo xamante ni jàmm bi dina ko jëf mu koy jural safaan lu dul moom alayhi salaatu wasalaam jàngal nañ ko yàlla nañ ko yàlla fayal moom ak i saxaabaam ak képp ku topp ci njubam boo bis penc di taxaw mbokk yi ñuy dénkaat suñu bopp dinañ dénk ragal yàlla ak topp yàlla subhanahu wa taala dëgg-dëgg ragal nag rik bu ñu faatu mukk di delluwaat ci borom bi subhanahu wa taala loolu dañoo nekk jullit mbokk yi suñu xutba yi tey ñu ngi koy fas yéene amal ci li ñuy wax al kibr muy rëy muy sikk woo xamante ni bàkkaar wala mooy bi ñu njëkk mooy borom bi subhanahu wa taala keroog ba ñu sàkkee si ñoom aadama alayhi salaam yàlla mu ni wa id qulna lilmalaikati isjudu li aadama fa sajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min alkafirin yàlla mu ni keroog bi ñu sàkkee suñu moom aadama ba noppi dafa digaloon malaaka yi ne leen su jootal leen aadama bi kaddu borom bi daanoo rek la malaaka yépp ko sujjóot yàlla mu ni illa iblisa ba mu des iblis li taxoon iblis si jiitul moom yàlla mu ni wastakbara dafa rëy rëylu baat boobu la yàlla jëfandikoo dafa rëy rëylu moo tax wa kaana min alkafirin bu bokk ñi nga xamante ni mooy ñi weddi ñi yàlla laajaat na iblis ni ko ma manaaka an tasjuda lima xalaqtu bi yaday astakbarta am kunta min al aalin lan moo la tere yow iblis nga sujjootal lii nga xamante ni wala kii nga xamante ni maa ko bind ci sama loxo yu tedd yi ndax da nga rëy rëylu wala da nga bokk ci ñuy kawe waaye iblis ak a ñàkk bopp mu ne ana xayrun minhu dama ko gën te la mu waxee ne moom la gënee suñu maam aadama mooy xalaqtahu min naarin xalaqtani min naarin wa xalaqtahu min tiin man yaa ngi bind ci ci ci ci sawara moom nga bind ko ci ban kii moo ñàkk bopp mbokk yi lii di rëy alayhi salaatu wassalaam moo ñu ko définiral mu ni aslul xadis bi ann nabiya sal allahu alayhi wa sallam qaala laa yadxulu ljannata man kaana fi qalbihi mithqaala darratin min kibr fa qaala rajulun ya rasula allah inna arrajula yuxibu an yakuna thawbahu xasana wa nacluhu xasanatan wa qaala alayhi salaatu wasalaam inna allaha jamilun yuxibu aljamal alkibru batru alxaq wa gamtu nnas nii la xadis bi tëddee alayhi salaatu wasalaam ci jàngale ana lan mooy rëy mu ni du dugg mukk aljanna koo xamante ni nekk na ci xolam ci jikkoom lu toll ne atom ci rëy bi mu waxee wax ji saxaaba yi wax ji rëy na ci ñoom moom alayhi salaatu wasalaam ñu dagg ay kàddoom ni ko ndax sol lu rafet wala sol dàll yu rafet moo xam yére yu rafet wala dàll yu rafet maanaam sanse koo xam ne dafa bëgg sanse nag yonente bi sallallahu alayhi wasallam ni ko inna allaha jamilun yuhibbul jamal mu tontu ko ci laaj boobu ni ko yàlla di ko taaru la dafa bëgg kuy taaru soo ko eggale nag waxam ji moom alayhi salaatu wasalaam ci lan mooy rëy mu ne ko rëy mooy nag baturul xaq koo xamante ne nanguwul dëgg nanguwul bu ko wax dëgg jàpp na ni moom ay kàddoom moo féete kaw kàddu ñëpp ba ku ko mën a wax wax jum mën a doon même bu ko conscience am damiram nangoo sax nee na dala koy delloo yama ci mu ni wa xamtu naas bal sax du nangu sax ku ko wax dara dara moom li muy joxe mooy ay ordre ñu koy exécuter soxlawul xalaatu keneen ku mën a doon alayhi salaatu wasalaam nee na mbokk yi lii mooy lii rëy rëy gii na mbokk yi ana yan lor la mën a def ci doomu aadama borom bi subhanahu wa taala nee na سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق moom yàlla subhanahu wa taala waxaat ni wa kadalika yatbau llahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbaar nee na ki nga xamante ne rëy rëylu dafa nekk ci moom ndax kenn rëyul ku dul yàlla subhanahu wa taala waaye kuy rëy rëylu yàlla mu ne li may njëkk a def mooy damay kaste sa xol li jaam bi di ñaan saa su ne mooy alhidaaya yàlla jubal la teg la si yoonu njub yàlla da lay kaste sa xol ba ab gëm yàlla dootul bokk ci yow kooku da ngay mujjee nekk koo xam ne dafa fëttërlu jabbaar koo xam ne lu ko neex lay defal lu ko neex lay wax te yemu ci borom bi subhanahu wa taala yonent bi nee na bu yàlla bañee doomu aadama bi ci rëy day woo jibril ba mu ñëw mu ne ko diw dama koo bañ wala hawla wala quwwata illa billah jibril woo malaaka yi bañ ñëw ni leen suñu borom nee na dafa bañ diw noona la yàlla subhanahu wa taala jëlee ci xolu jaam ñi def ñoom tamit ñu bañ la ba daanaka sa considération dootul bëreeti ci kaw alayhi salaatu wa salaam wax ni loolu mën na nekk ci kaw suuf waaye ki rëy wala kii rëy rëy moom yowm alqiyamati nee na yuxsharu aljabbaruuna almutakabbiruuna yowm alqiyamati amthaala darrin min suwari rijal yaxshaahum dilla min kulli makan nee na yow mi nekkoon ci kaw suuf di rëy rëylu ci kaw nit ñi teg sa bopp fu la yàlla tegul weddi li la yàlla jox alayhi salatu wasalaam nee na yowm alqiyamati yàlla da lay wàññi ba nga mel ni sànqaleñ ci kanamu jaam yi da ngay tuuti ba mel ni sànqaleñ ci kanamu jaam yi ba pare di di wëndeelu ci seen biir ba duñ la xaw a gis sax sànqaleñ bokk ci fii toog mën na am sànqaleñ te kenn mënu kaa gis yow mi doon rëy rëy nag ëllëg yowmal qiyaamati alayhi salaatu wasalaam nee na mën na la yàlla di tuutee la ci jaam yi ba nga mel ni sànqaleñ mbokk yi lii di mazahirul kibr mooy lii di rëy nan lay feeñe ci ci doomu aadama bi luqmaanul hakim dafa dénkoon doom bi ci doom booy lii de laa dee dénk ngir boo demee ba nekk kilifa mu koy bàyyi xel mu ne ko wala tusaid xaddaka linnaas fexeel ba lu la yàlla mën a dénk ci ëllëg bul filantal nit ñi bu nit ñi gis sab lex gis sa lex mooy ku ñëw di la wax si yow say ay waxam doo ko considéré say wax moom ngay jël doo déglu kenn sa xalaat rek moo la doy mu ne ko wala tamshi fil ardi maraha yow doom booy booy dox ci kaw suuf na nga dox dox wu dal dox wu tey ndax kaw suuf bi ngay dox ci kawam moom min daa koon la jaamu yàlla la te bul fàtte ni minha xalaqnaakum ci suuf si ngay dox ci laa la sàkk wa minha nuidukum soo faatu ne ci lañ la suul wa minha nuxrijukum taaratan uxra ëllëg tam ci suuf si lañ lay dekkilee kon defal naa ko ci kaw suuf ndax inna allaha la yuhibbu kulla muxtaalin faxuur yàlla buggul kuy rëy rëy lu kuy ponkal ponkal la ci kaw suuf moom yàlla waxaat ba tey mu ni wala tamshi fil ardi maraha bul rëy rëy ci kaw suuf innaka lan taxriqa al arda wa lan tabluga al jibala tuura ndax mënoo rëy rëy lu ba fee suuf si mënoo kawe kawe it ba sut montagne kon doonal jaamu yàlla nga wàccee sa bopp aqulu ma sami'tum wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwa al ghafurur rahim الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوان الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين mbokk yi ginnaaw bi ñu santaate yàlla subhanahu wa taala julli di selmal ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba tey ñu ngi suñu xutba yi lii di rëy wala rëy rëylu sabab yi nga xamante ne mooy tax doomu aadama bi feebar bii di rëy rëy lu dugg ci moom ak sababu rais bi nga xamante ne mooy ba ca gën a rëy fa buntu ba ñuy jaare fa muy jaare pour nga rëy mooy ujbul insaan bi nafsihi mooy nit ki mu naw jëfam nit ki saay bu nawee boppam rek di naw sa bopp jàppal ne tëj nga buntu boo xamante ni mu ngi la yóbbu ci rëy moo xam li ilmi bi ci sa xam-xam te jàpp ne yaa sut ñëpp xam-xam yaa ëpp ñëpp xam-xam ba tax na yow sa xalaatu bopp rek ngay doy woon aw li maali nii wala nga am alal ba jàpp ne yow moom soxlaaloo kenn dara kon nit ñi da nga war a digle rek ñu exécuté te mbokk yi xam-xam boo fi am nit am na ko ba dem am nu ko fi doon fuuf boo demee ci imam Malik rahmatullahi alayhi rahmatan wasia benn waay ñëwoon na jóge ko sori indi masala ñëw ni ko man de maa ngi jóge ci ku sori ñëwoon masala bi di la ko laaj imam Malik ni ko sa laaj bi dafaw la mu ne ko moonte de yow laa dégg ni yaay borom xam-xam bi gën a mat mu ne ko waaye man Malick xaw ma sa laaj bi mu ne ko kan moo ko xam kon mu ne ko xanaa ki ko yàlla xamal bokk yi nisful ilmi laa adri xaaju xam-xam loo am am ci xam-xam jàppal ni am na xaaj boo xamante ne xamuloo loo réer alal it loo ci am am na ñoo xamante ne ay magasin ay or lañu amoon ak i jamono tey ñu ngi ci biir kaw biir ci suuf alal boo fi mën a am boo demee ëllëg dañ koy séddale sa ginnaaw rëy rëy lu mën na jaar ci ñaari bunt yi ci nga naw sa alal wala nga naw sa xam-xam wala nga naw fi nga bokk jàpp ne man askan moo bokk wala ngir bi ma bokk mooy ngir bi nga xamante ne mooy di ci loolu mbokk yi jumtale ci doomu aadama bi ndaxte yàlla ñun ñëpp mu ngi sàkk suñu maam aadama alayhi salaam wa aadama min turaab aadama ci suuf la ko yàlla bindee ki gën ci nit ñi moo ci gën a ragal yàlla inna akramakum inda allahi atqakum mbokk yi kon ki nga xamante ni lii di rëy rëy lu dafa nekk ci moom ana lan mooy saafaraam borom bi subhana taala moo wax ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci xadisul qudsi mu ni ko al kibriyaau ridaai والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في جهنم من لي دي ري ري لي دي ري ak lii dig mag gaay man yàlla may borom képp ku ko fas toog man boo ñëwee ëllëg dinaa la jël tàbbal la biir tabar jahannam wala iyaadu billah kenn ci yàlla mu teg mbokk yi ki nga xamante ni fexe na ba natt boppam ci lii di rëy rëy moom lan la ko lan la ko yàlla dencal ki nga xamante ni fexe na ba rëy rëylu dañ ci moom xeex na ba xam ne lii muy rëy rëylu mu xeex ak moom wala nan sax la ko war a xeexee boo ñëwee ba tey ci xalis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ni wa ma tawaadaw ahadun lillahi illa rafaahu llah amul kenn koo xamante ni ñëw na ci doomu aadama yi jàpp ni moo gën a suufe suufeel boppam lu dul ne yàlla da koo yëkkatil boppam bu ñu ñëwee ci ci misaal ki nga xamante ne dafa jàng ji woon xam-xam ba jàpp ni moom li mu xam moo ko fekk xam-xam sax mu ñëw defee way juram ndax jàpp na ne way juram lam jàngoon jàng mu yàgg bala ñoom seen jàng mu gën a xaaj mu ñëw ne ko yow bàyyi yàlla naka lay mën a bindee iblis ci safar ba pare ëllëg mu koy dugal biir safar di ko lakk safara nan la mënee lakkee c'est absurde moom foofu la xam-xamam toll foofu la jàpp ne foofu la xam-xamam toll ni muy daaneel kàddoom rek wéyjur da koo pes fees mu tàng jër ba mu daan jugaat see ci lex ni ko waa lii nag mu ne ko sa laaj bi lay toll ndax li ma la doore lu mu doon mu ne ko sa loxo la loxo bii du deret mu ne ko ah kay mu ne ko fan laa ko dóor mu ne ko sama lex sa lex bi du deret mu ne ko ah kay ndax bi ma la ci dóoree amul impact mu ne ko ah kay mu ne ko nu raw nii nag la iblis yéegee méttitu sawara bu ko yàlla dugalee ci mbokk yi xale bi bu ko woy juróon tontul woon bàyyi woon ko ci noonu ak rëy mën naa dugg ci moom ba mu jàpp ni moo fi sut xam-xam bay defee borom subhanahu wa taala ci li muy lakkee ëllëg iblis laatullahi taala naka noonu la nit ki war a nattee boppam bu baax nag laata nga dugg ci askan wi di juger wala ngay natt sa bopp ci limu ñaara ngi nii ñoo xamante ne dañoo jàngi di woon ci seenu daara ba mokkal alquran ci daara ci di xaar ndigalu sëñ bi ngir mu yeewi leen kenn ci ñoom dina yàkkamti nag yàkkamti lool yàkkamti ngir sëñ bi ijaasaal ko moom dem sëñ bi daal di koy woo moog benn moroomam mu ni leen toog leen dama leen ne bëgg a yéen waaye laataa ma leen di yéen dama leen di sant benn liggéey dama bëgg ngeen dox génn dem ngeen xoolal ma kan ngeen jàpp ne yéen ñaar moo gën a doy dal moo gën a doye di ci nit ñi xeebu daal ci nit ñi ngeen indil ma ko sëñ bi dafa daaneel rek moom mi nga xam ne moo yàkkam ci woon a dem ni bërëg dem ko ci yoon ki ci des ne dégg toog mu dem di wër gis na ñuy naan sàngara gis na ñuy sol sol bu zaahire gis na façon façon nit bu nekk ba mu demee ba yem ci koo xamante ne ku dese la xëy mi dese na mu ngi toog ci mbalit mi solul yére tiim lekk goo xamante ni lekk bu yàqu la di ko lekk mu ni kii ma mënu ma faa yóbbu waaye naa yóbbu xibaar bi sëñ bi ñëw ba ci sëñ bi ne ko man ni ki ma gis kooku ma mënu ma ko indi sa kanam sax ndax maa ngi ko fekk ci anam mi mu wax ko anam mi ko fekk sëñ bi ne ko toogal ni keneen ki lan moo tax demuloo subhanallah mbokk yi moom dafa delloowaat sëñ bi ci la ko sëñ bi jàngaloon mu ne ko yàlla dafa wax ci alxaan ni ko qutila al insaanu ma akfar min ayi shay'in xalaq min nutfatin xalaqahu fa qaddar summa sabila yassara ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره mu ni man sëñ bi jàpp naa ni képp kuy dox ci kaw suuf maa ci gën a doy ndax damay fàttaliku ci li ma yàlla sàkk ci ndax mu ndox mu ñàkk solo boo xamante ni fu ma takkoon léegi ni du ma bëgg kenn gis ko yàlla subhanahu wa taala fekk ma ci sama biiru wéytu façonné ma bind ma ci créature boo xamante ni macha allah te su ko neexoon mu def ma neneen ba génn jot ci sama biiru way jur kenn fekku fa yàlla yàlla bënnal ko ay poos ngir mu mën a génn ci génn waay bi nga xamante ni xat na lool summa sabila yassa yàlla moom ma def loolu mooy toogaat ak biir sama nekk ci kaw suuf mu faat ma su ma faatee kenn du ma aj ci kaw air ndax bu ma bàyyee ak biir te galaatewuñ ma rek dama yàq mbokk yi mooy noonu lañ may jëlee dugal ma ci biir suuf suul ma yàlla toogaat ba mu neex mu dekkil mu ni kon lii ma jàpp ni moom laa jàpp ni maay ci gën a doye di ci yow suuf damay gën a ci kaw suuf sëñ bi yére yi moom njëkk a sol dañ ma koo solal te bu ma faatoo it yére bi muy mujjee sol dañ ma koy summi du ma sang sama bopp sax nañ ma sangee woon ba may gën a saa noonu lañ may sangaate kon maa gën a doye di ci kaw mbokk yi sëñ bi di kiy daanelee moom la ijaazaat ni ki ci des toogal yow mënu koo dugg ci biir penc mbokk kenn ku nekk na nag boppam ci rëy moo xam yow soxna si biir kër nga ak sa borom kër ndax yow yii ñii kilifa yow da ngaa xam lépp ba tax na soxlawoo xalaatu soxla si suuf soxlawoo xalaatu keneen déedéet alayhi salaatu wa salaam la ñuy nattee suñu bopp ci marxala bu waay mën a nekk da daan diisoo ak i soxnaam di diisoo ak saxaaba yi radiallahu anhu salman al farisi yonente bi salaa sallam ba mu ñëwee ci xandaq yéefar yaa ngi ne di ñëw bu mu ñëwee traverse ñun ñëpp la ñuy faat waaye yonente bi salaa sallam xalaatu salman la déglu ki nga xamante ni nekk doon sa arab ci farisi la wax ci perse la woon salman ne ko nañ gas ay kan yu rëy pax yoo xamante ni ñoom bu ñu ñëwee duñ ko mën a jéggi ak ay kéemtaan yu bëri ci xew ba ñu gas xandaq yi noonu la yéefari noonu yi taxawee ci ginnaaw kan wa kenn mënul jéggi pax yi nekk fa nekk fa nekk ba ni ñu xuloo ba dispersé wu ba tey fekk si ñu ñii di julli ñi yonente bi salaa salaam kan la ci déglu woon salman al farisi kii liggéey ak ci koy liggéeyal kenn ku ci nekk war na mën a bàyyi xel ci ni man mii di liggéeyloo kii yàlla ma teg rek su ma koy liggéeyloo waaye sutuma koom xel mën na am loo xamante ni maa ngi ko sant li alors que moom xam-xam bam ci am moo gën a sell sax waaye nga nangu koo taataan ngir li ngeen bëgg muy lu baax mu mën mu mën a ànd yow mi nga xamante ni yow yaay yow li ñuy liggéeyloo bul rëy ci kii lay liggéeyloo ne la defal nangam nga war koo mën a def ndax yéen ñaar yéen a bokk lenn lu ngeen bëgg mooy li ngeen di liggéey bu paree mu nekk loo xamante ni lu ñu lay nekk naka noonu bépp njiit nag bu mu mën a doon moo xam njiitu réew fal gu mag wala fal gi suuf bu mu mën a doon dafa war ci bépp ku nekk ci ñoom ngay bàyyi xel di taataan ñi nga xamante ni ñoom nga jiite seen i xalaat rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna innaka anta tawwabu rahim ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب قوموا إلى صلاتي يرحمكم الله